mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ci waxtu wu tedd bi ci barab bu tedd bi ñu nekk di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi saaxibul fadila alcheikh muhammadul muntaqa alxalifa al aam di ko ñaanal suñu borom tabaraka wa taala mu màggal mu yàggal ko fi lool te may ko tawféex akub tal ba mu mottali yéenéem ci diine ji ak ci yoon wi te ñu ànd ko ak moom ñu dellu rekk ci bis bu tedd bii di bisub Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di bis bi nga xam ne moo gën a màgg ci bis yi ndax li gën a màgg ci bis yi ci la am muy feeñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñ boobu nga xam ne dafa andil àdduna lu bees yeesalaat ko joxaat ko qiima boo xam ne ba mu ñëwagut sallallahu alayhi wa sallam amu loolu la sëriñ bi ci junj ca jësbul xuluub laylatu mawlidi nabi laylatu maxwi riyabi laylatu maxwi taabi wa tuxridi taasumi loolu mooy ba yonent bi ñëwagut la amoon lépp ay tooñaanga la doon ay sikki sàkk la woon kenn amut lu wér lu wér loo xam ne ca ngay jaamoo yàlla waaye nit ñi doon dundante ci ak tooñante rek ku man sa morom duma ci loolu lañ doon dund ñëpp di dund ci ay bakkaar loolu moo amoon la yonent bi sallallahu alayhi wa ñëwagul ba mu ñëwee nag mooy bayit wa ca tegu bi han najaatu wal falaax ma assuruuri wal najaax bi ar rabaaxu wal falaax ma andifaa in niqami ba mu ñëwee nag la loolu lépp xew lee lépp dem na waaye lii lépp ñëw na muy mucc muy tono muy texe lépp gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu ñëwee la lépp ñëw kon moom moo fi jëlee texee di moo fi andi texe kon guddi gu mel noonu bu ñëwee jullit yëpp war nañ koo yëg jullit yëpp war nañ koo safoo jullit yëpp war nañ koo màggale fa bi ma fa bi ma rahmati min allahi wa bi dalika falyafraxu huwa xayru mimma yajmaun nit bu ko yàlla defalee xéewal day sant yàlla ca xéewal ga te cant ga nag mu di ko wone ci ay anam yu bari anam gii ñu koy wone nag ca la bokk kon mbir la moo xam ne du lu sosu ci diine du lu yees ci diine waaye lu ñu yoonal ci diine la lu ñu digli ci diine la tam waaye bu loolu lépp jàllee ñun kii suñu royukaay di cheikhul xadim radiallahu taala anhu nga xam ne lépp lu muy def ci diine da koy teg ci sunna nun moom la ñuy roy ci lépp lu mu doon wax ak lépp lu mu doon def te guddi gi day guddi gum réyaloon lool itteel ko lool ba ñépp xam ko ci moom dañuy faral di wax ne sëñ tubaa ñaari bis la am muy bisu màggalu Touba ak bisub mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam bisub màggalu Touba yàlla la ko féetale bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di mawlitam yonent bi la ko féetale kon moom amul bis ñaari bis yooyu rek la am te bee yàlla la ko jox bii yonent bi la ko jox sallallahu alayhi wa kon loolu wone na rëy boo xam ne rëy rëyu bis bi àgg na foofu ñu tàmma def nag at mu jot bu ñëwee daa daairatu muqaddamatul xidma bii toppatoo jumaa ji ak li ko wër sëriñ bi dénk leen ko ñu di ko saytu ak daayiratu rawdu rayaaxiin mi toppatoo lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ci yoon wi ñoom la sëriñ bi joxoon ndigal saa boo xamee ne bis bii ñëw na ñu màggal ko ñu taxawe ko ci barab bu tedd bii di jumaay Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu taxawin woo xam ne day dëppoo ak na ko sëriñ Touba doon taxawalee ca njaareem te nam ko doon taxawalee ca njaareem mooy taazimuhu bi sunnati rek la ko doon taxawalee taxawal ko taxawalin moo xam ne day dëppoo ak sunna lépp luñ ciy def day dëppoo ak sunna loolu moo tax ñaari daayira yi nag taxaw guddi gu jot ñu defee ko nii ñu ko faral di defee daje ci bis bu mel nii waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nit ñi gën koo xam buñ ko xamee gën koo sopp waaye buñ ko soppee gën koo roy te buñ ko royee daal di am saadatu nii muy tax ak àdduna ak tax ak alaaxira niñ ko faral di defee nag mooy saa boo xamee ne guddi gi ñëw na bëccëg bi buñ ci jàngee kaamil yi ñu ciy jàng ak ci guddi gi lu mat fukki kaamil ak ñaar teg ca jàng ci ay xasida yoo xam ne dañ koy durus yu bari suñ ca jógee nag bu guddi gi tàmbalee nag ñu tàmbalee waxtaan woo xam ne dañ ciy waxtaanee yonente bi sallallahu alayhi wa ndax li may faral di wax ne ñu baree bari gàmm day ñëw ñu ne dañuy gàmmul yonent bi waaye leneen lañ cay wax lu dul yonent bi wala keneen lañ cay wax ku dul yonent bi te nag yonent bi moom lañu war a wax ci guddi yëpp waaye bu desul lu genn guddi yu ko séddee nag bu ñëwee nag ñu war a wax ci guddi googu nag te wax ji yëpp ñu jëmale ko ci moom loolu moo waral daayira bi tànn mawdu bu am solo boo xam ne na ko daan tànnee muy mawdu bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dundee ci biir ak waa këram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la daan dundee ci biir këram ak waa këri boppam yi muy Maodo bu am solo boo xam ne jamono laaj na ko ndax kër yëpp lëj na kër yëpp jaxasoo na te amul solution bu dul dellu ci démb xool na ko yonent bi sallallahu alayhi wa doon dundee nu dundee ko noonu rek Maodo boobu tey moom lañ tànn ki ñu koy defal di suñu mbokk mii toog sëriñ Mbàkke Abdourahman di kenn ci maamaru Rawdu Rayaxiin di ku ñu xam ci dëkk bi ku ñu xam ci yoon wi ci mbir yu mel nii mu di jëfaral di euh, labiré doomu aadama yi kon danañu ko jox lu mat waxtu wala lu ko jege mu waxal nu kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la daan dundee ci biir këram loolu nag la tax ñu di ko tànn mooy képp ku ne ci noonu benn nga yor kër yor ay njaboot wala nga bokk ci njaboot soo yoree kër boo ko digloo da nga ca mën a royee loo mën a gën a rafetalee saw yorin soo bokkee ci njaboot ga it da nga déggee loo mën a gën a rafetalee saw sa toppit kon Maodo boobu mooy bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee tey jii ñuy ñaan ñépp ñu diglu ko bu baax te teewlu ko bu baax ndax loolu rek mooy njariñul gàmm njariñul gàmm mooy xam yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko xamee nga sopp ko boo ko soppee nga roy ko te boo ko royee noonu ma ko waxee nga am texek àdduna am texek kon ñu bàyyi sëriñ Mbàkke yàlla ko yàlla dimbale tawféexal ko ba li ñu yaakaar ne danañu ko jox mu jox na ko ni mu ko war a joxee sallallahu ala sayyidina muhammad faddal sëriñ نقطا يشمل أهله من الآل والأحباء mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gi béréb bu tedd bi siyaare bu baax mawlaana cheikh muhammadul muntaqa ñaan sunu boroom sàmm ko dëgëral di siyaare mbooleem fu ab jullit nekk di béggee fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yërmaande yàlla jooju xéewalu yàlla googu nit ku mat kooku yàlla feeñaloon te mu daje woon ak guddi gi ñuy màggal nii ko sëriñ Muntaqa waxe léegi kilifa yi ñoo sàkku ñu waxtaan ci ab tomb ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tànn nag yonent bi alayhi salaam ci biir këram ci biir njabootam mooy ni mu ko waxee tomb boo xam ne war naa soxal ku ne ndax benn ngay jaboot mbaa ngay njaboot te ñun ñëpp yonent bi salaam mooy sunu royuwaay yonent boobu nga xam ne yàllaa ko tànn bind ko ci mat def ko muy royuwaayu ñëpp mooy nit ku sot koo xam ne nu nit war a mel mel na ni moom la sëriñ bi junju ca muqaddamatul am daa di wax ne wan yi daje ci mi baax yépp daje na ci jëmmam ja yi tasaaroo ci yu baax yi moom dajale na ko mooy nit ku sotti ku mat ku mat lim doon waaye mooy al mooy royuwaay bi ci moom lañuy ñuy nattee baaxu ku ne ku ko gën a jege ci mbaax gën na kenn nag du àgg ci moom kenn du ko dab waaye noo ko gën a jege rek rawe ko ñeneen waaye noo ko gën a sori yéese ko mooy huwal huwa naasu wal misaan mooy nit ku sotti waaye mooy nattukaay bi ñu natt nit ñi kenn ku ne sab dayo yonent boobu yàlla tànn matal ko daf ko muy royuwaay ci lépp la kon royuwaay la ci biir këram waaye royuwaay la ci ni mu doon dundee ci biir njabootam kon jullit ñi war di ko fàttaliku saa su ne xam ne am nañ seen royukaay bu leen yàlla tànnal muy ki gën kon takk ci suñu kanam lépp lu ñuy def ñu dellu ci moom loolu la fi ñu baax ñi ko wutu ñëpp nekke woon di ñu jegeel ak dundam bañ man koo xam ci seen i jëf ak seen i jëflante yonent boobu nga xam ne ku waxtaanee yonent ci biir këram ak ni mu doon dund ci njabootam da nga waxtaane jëmmam ju bi ja yàlla tànn ko mu ràññi koo ci yu bari yee ca gën a fés mooy mat doon nit ku mat ku sotti ku ko gis xam ne nit ku nitee ngi nii ku yiw ngi nii ku baax a ngi nii ku yëwén a ngi nii ku bàyyi xel ñëpp a ngi nii jëmm ja set ga yiw ga xay ga waaye xàmmee ga lépp roy waay rekk kon suñ koy waxtaane faw ñu tudd yooyu nga xam ne amu ci woon moroom day jëmmal rek li sëriñ bi waxoon ci moom ne wa huwa fa huwa akmalul xalqan wa xulqan zahra wal mithlu qattu lam yura walan yura fi moo gën a mat ci mbindéefi yàlla yi yàlla bind moo ci gën a mat ci bind ak ci jikko nee na am kemam feeñutoon ci ñëwee yi ñi ko jiitu woon amu ku mel ne moom ñi ñëw ginnaawam ku mel ne moom waaye nag ku ko gën a jege say morom rek gën leen gën a leen tool ne noo ko gën a jege da nga leen ko gëne nit yi googu da ko ñoroon ndax ku waxtaane ñu des la waxtaane doon gim doonoon nit ba buy dund ci biir këram ànd ak nubu woo ak cër bi ku yàlla jox waaye nit la woon ku bàyyi xel nit gi ci am colam ci ak yiwam ci ni muy defaroo ni muy jëflanteeg nit ñi ni muy bàyyi xel nit waaye ràññi lool ci woyof woyof cër bu réy bi mu am koo xam ne yàlla ngay wàcc di yebal ndaw di wax ak moom muy dégg di wax jàmm naa leen seen borom nee na te muy lu wér waaye boo ko fekkee ci biir këram fekk ko ci njabootam dangay ngay defee ne kenn la ci nit ñi rek sallallahu alayhi wa sallam woyof bu mat sëkk koo xam ne li koy jëmmal mooy kër gii ñuy wax naa ne Muhammad alayhi salaam biir këram boo koy dégg da ngay jàpp ne ay château la dëkke woon ndax yonentu bi yàlla ñëpp di daw wut ci moom ku jàq daw wut ci moom da ngay séenu mu dëkk ci kër goo xam ne kër gu rëy la ay néeg yu réy fa ne ay bagages yu bari waaye yonentu bi alayhi mbokk yi buñ la waxee kër gi mu dëkkee woon loolu mooy dayab tawaadoo tabax yoo xam ne ndon ndon lañu jël raaxe ko ban xadde ko am ndon néeg yu mel noonu ci la yoo xam ne ëppul ñeenti meetar lal boo xam ne it gongu lay doon ñu rabbe ko ndon pajaas boo xam ne aw der wuñ def ca biir xañ ci xaañ ci ron pajaas yooyu jëlun tëdd benn bis Seydina Omar fekk na ko mu tëdd ci ak basanga ndeysaan jeexee ci basang gi feeñ ci yaram wi Omar daa jooy mu ne ko looy jooy Omar mu ne ko dama xam ne nii nga tëdd ci basang sa yaram wii di jeexital ca Kisra Kaysar ña ngay lemu ci ci xariir ak suwaa te li la yàlla tànne mu ne ko nañ jël àdduna ñun ñu jël àllaaxira Omar moo tànn tànn nañ ko nekk buur ab yonent wala nekk ab jaam nekk yonent mu ne naa doon jaam nekk yonent kon moo tànnoon dund ko doonutoon ne dafa ñàkk ba jéggi dayoo waaye dafa nekkoon zaahid kon woyof di jàngale ci loolu it ne kenn ku ne fa ngay dëkk bu mënee suturaal nit ci tàngoor akub sedd rek ak taw rek jàppal ne baax na ngir jullit ndax yonent alayhi salaam moom dëkkoon fu mel noonu la as néeg la woon soo xam ne xasanul basri yi nee na ci jamonoy Seydina Ousmane dugg naa ci néegi yonent bi soxnaam yi bu ma tàllalee sama loxo jot xadd bi nee bu tàllalee loxoom day jot xadd bi nga xam ne ko néeg bu suufee bu jege suuf ci jasiira nga xam ne ni mu tànge woon fu mel noonu la dëkkoon di tëdd ci lal boo xam ne lalu gong la boo xam ne pajaas bu ñooxee xañ ci ron la léeg-léeg mu tëdd ci basan léeg-léeg mu tëdd ci suuf ndeysaan woyof boobu la tàmbalee ànd ak njabootam di dund loolu waaye bokk na ci woyofam googu itam ku ko fekk ci biir këram fekk fa nit ku simple koo xam ne buy toog li ëpp ci suuf lay toog bu dikkee ci jataay fekk nit ñi toog du jéggat ngir ne waaye kilifa ci kanam laa jëm fu mu njëkk a jot rek kaana yajlisu xaytu yantahi bihi l majlis fu mu njëkk a jot rek jataay fa lay toog te mooy kilifa gi moom la ñëpp yi déglu bu bu am aw ñam teewee ba muy jëfandiku day sukk bëti wowam ci suuf lem ay tànkam du sóonu du lekk du tëdd di lekk du lekkeb càmmooñ waaye lekkin wu suy jëfandiku lu wat na ci ñam wi mu far ko seex di wax ne dee leen for lii ndax kenn ci yéen xamul barkeb ñawi fan la ci nekk ndax fepp yi ci suuf mën naa am ci la barke bi nekk bu foree lekk ko jot ci barke bokk na ci woyofam ndab lu mosaan taaj ci këram du lekk moom dong faw day ànd ak mbooloo yu bokk di lekk wax nañ ne na këll bu mag boo xam ne moo ko moomoon bu tudd alxarra ñu ma sànn xëy ba jullit soo ba noppi ba mu xaw a naaj nee na këll bi ñeenti nit ñoo koy jàppoo ndax réyaay ñu def ci li ñuy wax xarit nga ne yàpp soosu ndawal lay doon ñu wal mburu mu wow suy ko ci saxaaba yi wër ko day daal doon kenn ci ñoom bañ defee loolu daa ñëw sukk bëti woo moom nii benn arab yi bu nekk ci mbooloo mi ne waaw bii toggit nag jàpp na yonent ay salaam daal ni mu màgge di toog toog yinu toggit wi daal jaaxal na ko yonent ay salaam ne ko man at jaam laa bu yàlla teral waaye du ma mutakabbir du ma jabbaarun anim nga xam ne danga nga seetlu ci lu nekk ki ñi bokk ak moom saa bu xëw lu jotee ñi ne ku fi teew rek bokk ak moom enraj boobu xamul yonent bi waaye day ñëw fekk jataay ba ba tax gis ni mu toogee jaaxal ko mu naan waaw yu toogit yàlla yu toogee nii mu ne ko man ab jaamu yàlla la boo xam ne yàlla ma teral waaye duma jabbaarun anim yiw lool ci jëfandiku wax na buy lekk ñetti baaraam lay jëfandikoo te bu noppee day martu balaa fomp loxoom wax nag ni aw njamit bu jeexee fonkoon na lool la ci mujj ñitt bool ba mu set ba lenn luy nuru yàq aw des wu ñuy tuur wala du yàq bu ci nekk mu door a jóg fu dara taqit mu for ko loolu ku waxtaane ak dundam ci biir këram da nga waxtaane lool door a ñëw nag ci ni mu daan jaxasoo ak waa ay soxnaam ay doomam ay surgaam lépp lépp royukaay la ci boo xam ne ku ne ci noonu war na koo bàyyi xel waaye jël ca ay bind ndax lépp ay bind yu am am solo la yoo xam ne daa matu tay bokk na ci loolu moo wax léegi du beru du lekk moo ak njabootam ak gone yi ñoo lay bokkal eh, am Omar ibn Abi Salama nee na gone gu ndaw la woon nekk ci kër yonent bi alayhi salaam su ma saana bokk moom nee dama daan daf sama loxo daal ci biir ndab rek lu ma xemem rek jëli mu jàngal ma ne ma booy xew looti na tudd yàlla te lekk ci sa ndeyjoor te yem ci sa kanam nee de lii yullu sala boobu xale bu ndaw laa moo ma ko jàngal ca laa doxee mu nekk sama aada ci bu may jëfandiku ndeyjoor lay lekke sama kanam laay yem bala maa tàmbuli danaa wax bismillah waaye daan na waxit ne aw ñam bu taajee sa sa ngóor sa surga bu defaree aw ñam indil la ko bokkal ak moom bu ngànt amee ba mun a bokk ak moom tibbal may ko ndax moo la ci sonnal wuutu la ca tàngoor wa ak coono ba kon bu la ko joxee na nga ko teral kon daan bokk ak njabootam li nga xam ne moo leen yilif ñu nekk ay surgaam la ci biir këram suñ defaree ñu andi ko mun la ba toogal ñu bokk lekk waaye nag di la jubbanti loo ca def noo wërta dafa di ko mu terale ko ba nga doxe ci tàmm ak yiw woyof lool buñ la waxoon ay bagages ci këram li ma wax léegi ne buñ la wax booy jenaar yonent bi da jàpp ne ku dëkk dëkkuwaay yu rëy la waaye dangay jàpp ne këram ay bagages yu dul jeex ñoo fa nekk waaye dañ naa la benn kopp boo xam ne dénk la woon ci la daan naan lépp ndox ak lem ak lépp lu muy naan benn kopp la amoon boo xam ne buy naan ci la koy naanee am benn satala bu muy jàppee am lenn ndab lu xànjar lu muy sangoo am benn pot boo xam ne ab seetu la ci doon def akub jartu ndax ku fonkoon seetu la fonkoon jartu saa yu defaroo wa day peñe kawaram defar ab sikkima ba mu jekk door a waaye amoon na pot boo xam ne tusngal moo ci nekkoon ci lay tusngal bët yi ndax dafa baax ci giram ak benn defukaayu gëtt ndax ku fonkoon gët la ku bëggoon gëtt la ndax yàlla dafa teey bëgg lu teey ak benn mudd ak benn saam mën nañoo wax ne baga boo duggoon ci dëkk yonent bi la fa nekk ci ay bagage mooy yii ci koo xam ne mooy sangu bi ne fii ñëpp ñëpp mooy seen kilifa waaye ci biir këram ku waxtaane yonent bi wax jaamu yàlla boo xam ne dafa fonk lool jaamu yàlla ci biir kër gi di bàyyi xel yàlla su nekkee ci biir kër gi nekk ak njaboot gi fu mu dégg ak noddu bàyyi na lu mu jàpp dem jàpp daal julli rakkaa yi mu war a jiital daal di génn dem jàkka ja julli farata dellusiwaat ci kër gi julli toftali ci war a topp farata ci jàkka ji rek la ko doon jullee waaye naafila yi moom ci biir këram la ko doon jullee yemu ca di naafila bu guddee bu ramadan dikkee fukki fan yu mujj yi du yem ci boppam ay day yeewaa këram ñu ànd na ñoom di naafila bu tëddee ci këram ba guddi mu yeewu jóg jàpp taxaw dee ak borom soxna Aïcha nee na fekk dañ doon wax ñu doon nettali ne kuy julli jigéen jaar ci sa kanam julli ga yàqu na soxna Aïcha lam ko nee na daanaa tëdd ci kanam yonent bi mel nem néew muy julli guddi ma ne ci kanam moom muy nafila nga xam day tëdd ba guddi mu jóg jàpp julli lu ko soog bàyyi xel yàlla boromam ci biir këram kon jaamum yàlla la boo xam ne bu nekk ci biir këram it du fàtte yàlla benn yoon waaye ku tudd yonent bi alayhi salaam ci biir këram tudd boroom kër bu baax bu yiw bu bëgg waa këram bu maanu ci diggante waa këram buy diisoo ñoom bu mën a sàmm kóllëre ku mën a kaf waaye dëgg rek lay wax aswad nee na mas na maa laaj soxna Aysa ne ko waaw yonent bi salaam nu mu daan mel mu nekkee ci biir këram mu ne xanaa di liggéeyal waa këram nee na ku mu gis ngay def dara mu ñëw jàppale la booy raxas booy yëkkat dara mu ñëw xaar ma jàppale la moom daal du toog jàpp njàmburam saa bu diggee ci kër gi daal lu waa kër gi nekk mu nekk ci ak ñoom waaye nee na saa bu déggee ak nodd nag lépp lu mu bàyyi ko jàpp daal dem wuy ji woote yàlla bi mas nañ koo laaj it ne ko waaw yonent ay salaam lu mu def ci këram mu ne xanaa di ñaw ay mbubbam baw dàllam daggee mu defaraat ko di def li góor ñi def seen kër bu dëggee ci kër gi daal day mel ne nekkatu ab yonent waaye góor ci biir këram la taxawaayu góor ci biir këram lay taxaw laaj ko it lu mu doon ci biir këram ci beneen laaj mu ne ah mbindeef la woon ne mbindeef yi bu ay yéreem tilimee wala bu taq moo koy defaral boppam bu soxlaa soow mooy dem ratt am xaram waaye mooy liggéeyal boppam bu amee soxla day jóg ne kon woyof ji na ci ñene ci kër gi kum ci woo nga daw ñëw waaye day jub di liggéeyal boppam loolu roy waaye la ci ne borom kër ci kër du ne rek maa yilif nit ñi lépp lu may def damay toog fi ma toog ñëpp di ma ko defal sang bu bindee fii danaa ànd ak waa këram luñ nekk mu nekk ci sallallahu alayhi wa sallam waaye fonk waa kër gi fonk leen yi Aïcha nee na daawut gënale su xëyee dana wër gun soxna yépp nuyu leen ba àgg fi mu ayee mu door a toog foofu am nañu daa ko def suba gi am nañu ne ngoon gi daan na ko def wër ñëpp nuyu leen laaj si njàmb yaram bu àggee nag ci aaye mu fanaan foofa ndax xam ngeen ne yonent bi alayhi salaam amutoon néegu boppam amoon na rek benn néeg bu ñuy wax mashruba bu newoon ci kaw nekk weer boo xam ne booba jafe-jafe ci ma waa këram fekk yi am tànkam di metti mu dem lëlu fa weer ba Seydou Omar fekk ko waaye bu dul loolu ku ayee ci waa kër gi rek foofa lay nekk ku dëkk ci saxaaba yi fa ko fekk waaye rek su xëyee dana wër kër gépp nuyu la ndax xam ne yonent ay salaam ni mu defaree woon këram soxna su ne danga nga am xojura xojura bi néeg la say wanag say waañ yëpp a nga fa waaye nag dañoo taqaloo waaye kenn ku ne lépp ku aye foofa lay nekk bu ay ga jeexee mu jàll fa des waaye du tee nag su xëyee moom wala ci ngoon gi dana wër ñëpp nuyu leen jàmm safoonte ñoom xam lu fa xew ku rafet jikko la woon ku rafet jikko la woon euh, mën a jaxasoog waa këram di kaf ak ñoom di foog ñoom soxna Aysa nee na benn bis nee na ko kaay ñu rawante nee na booba xale la nee ñu rawante ma raw mu ne ceel ñu dema dem ba jëmmi jamono nee ma xaw jël poids mu ne ma kaay ñu rawante nee na ma raw ko mu rawante raw ma moom daal ree daan ne ma haasihi bi tënk yaa ngi fàttaliku ba ma seerawante nga raw ma léegi fayu naa xool leen mbokk yi sangu bindee fii alayhi dox doxin bu mel noonu waaye ci biir këram it di saafoonteeg waa këram mel ni kenn ci ñoom soxna Aysa nee na mas na maa togg lu mel ni ab supp indil ko yonent bi alayhi salaam fekk soxna sawda nekk nee na ma ne sawda da nga lekk mu ne ma lekkuma ma ne ko da nga lekk nee na mu ne ma lekkuma ma ne ko boo lekkul dinaa la taqal na ma tibb ci soos bi taf ko ci xar kanam yonent bi di ree téye loxoom daan na ko fayal nee na sawda tibb ci soos bi xëpp sama xanam way tam nee na mu taxaw di ree mbokk yi xool leen sangu bindeef yi waa këram di doxale noonu mu toog di leen seetaan di ko mottali ay reer loolu mooy jikko ju mat jikko ju rëy jikko ju kawe nee na fekk na bis sa Aïsa ku nekk soxna Aïsa muy fo ndax xam nañ ne bi ko yóbbu islam jël gone la nee na mu yor ay fowukaayam nee na ma ne ko li mu doon mu ne ma ñii samay doom lañ xam naa yor ay doom yu sagaram ak yëf yi fan nee lii ci digg bi lu doon mu ne ma lii aw fas la ma ne ko li ci kaw fas yi mu ne waaye ma ne ma ne islam ah, ne ko ah aw fas woo mi laafu mu ne ko ah déggu ñu ne yonent yàlla Suleymaan amoon na fas woo xam ne dañoo na islam daal di ree ba bëjee feeñ kon di romb njabootam di leen bàyyi xel ci lañ nekk waaye lu mu dëkk ci kër gi ci lëj lëjit mu taxaw lëjët gi benn bi soxna Sofi yonentul fekk na ko muy jooy mu ne ko looy jooy gis nga du romb kenn ci waa kër gi nga ne ci mbir te bàyyiwut xel li nga nekk mu ne ko looy jooy mu ne ko Xafsa nee na man sama baay ab yahud damaa xas mu ne ko accam yow xanaa xamoo ne Haaruna ak Muusa ñooy sa baay yow ab yonent mooy sa baay ab yonent mooy sa am ab yonent moo la yor ban ndam la kenn mën a ndamool ci sa kaw lu weesu daggree daan ne Xafsa ittaqillaa yooyu itam bàyyi la yow kenn ko noonu la doon rek lay biir këram lay xew ci biir njaboot gi ci sew lu ci nekk dana ko réglé ci dëgg waaye dana ko réglé ci dal waaye dana ko réglé ci maandu waaye bokk ci loo xam ne it ak matam loo ko mën a def lu mu rëy rëy du gis boppam mbokk yi am na ci ñun loo xam ne bu la ko nit defoon ca ngay doxi ba ko bu faw andil nañ ko soxnaam sallallahu alayhi wa sallam mu wéet moom tàllal loxoom jëme ko soxna si ne ko auzu billahi minka daa ree maa ngi ñaan yàlla musal ma ci yow daa ree ne ko ah yaa ngi ñaan mucc ci koo xam ne ci moom la ñëpp yi muccee daal di génn ne nañ ko jox yóbbal ay yére te bàyyi ko mu dem sallallahu alayhi wa sallam merut ñaxtuwut waxu ko lu ñaw ginnaaw jubuu ko rek la ko bàyyi mu dem donte am nañu wax ne soxna sa loola waa kër gi ko tegaloon pexew dañ ko ne yonent daa bëgg baat boobu dañ ne bi ko joxee yonent dañ ko taaru lool waa kër gi nag xaw a am lii dal jigéen dal ko ñu ne nañ ko fi nañ ko fexeel daan na ko daal bu duggee wéete yow rek ne ko en suñu lay baat bu ko neexal am na ñu wax ne lool la wax nga xam ne kon pexe yàgg naa am ci kër yi waaye yonent bi islaam doon ku mat ci nu muy jëflanteeg eh, jigéen ñi ci loolu waaye àggoon na ci soxna Aïcha nee na benn bis xaw na ma tungóom ma ne ci ginnaawam sama lex ma teg ko ci lexam di seetaan waa xabasha ñuy foof ci biir jàkk ji ba doyal mu door dëpp ànd ak moom nu mel noonu la doon dundeeg waa këram yépp benn bisit soxna sa toog na ne ci këram yonent bi ayee foofa seneen soxna dafar ndab aw ñam ne ca ne ko jox ko as ngóoram ne ko yital ma ko yonent bi xam nga rek jigéen ñi yàgg nañu def yëf yow ayewoo bu baax ci aye feneen nga togg aw ñam di ko yit bi soxna ay sa gisee ndaw li mu dugg rek mu kar ko fil loxo ba ndab la këpp daal di xar ñamatuur waaye yonent bi aleyhi salaam ca mat ga daa jóg daan ne saxaaba yi toogoon ah seen yaay yi daa féer de daa dajale xarit ya dajale ñam wa daa ne soxna ay sa dama indi bool mu indi bool baax mu jox ko xaadim ne ko yit ko sama jan daan ne Aysa yaa yàq boolu jàmbur kon téyel boolu bu yàqu bi sallallahu alayhi wa sallam yuuxuwul waxut lu ñaaw dóorul waaye yéwé na na lépp lépp ci maam yi noonu la doon dund ci biir kër kon ñu xamante ci ne nekk lii xew ci kër yëpp mu ngi doon xew ci kër ku baax waaye ak matam ak niteem ak yiwam ak maandoom moo tax dara daw jëm ko kon war nañ koo roy ci melokaan wu tedd woowu soxna Aysa ba tey nee na ci mën a sàmm yu du kóllëre xam nga soxna Xadija la njëkk yoon yoraatul keneen ba nim génne at waaye mu fonk kóllëre googu ba soxna Aysa di wax ne ni ma fiiree Xadija mosuma koo fiire jigéen te mosuma koo gis waaye damay dégg rek lay lay yëngu si la di ko tudd rek hey Xadija Xadija nee benn bis ma ne ko waaw ah, xanaa Xadija moom dongul yàlla bind ci jigéen mu ne ma ah Xadija de moom bokkoon na ci meloom nangam ak nangam wax yu bari yu baax daan na ko te moom it laa amale doom na àgg na ci léeg-léeg mu rey ab gàtt dagg ci ndawal ga daan na yital ma ko xarit ci Xadija yi nekk ci koñ bi Xadija faatu lu yàgg saa bu soppi cinam ne nañ tibbal xarit ci Xadija yi kon di sàmm kóllëre rek amoon ak moom sallallahu alayhi wa sallam waaye doon koo xam ne it ku mën a bàyyi xel ak njabootam ku mën a wormal nit la ab yonent la ne ci kaw ñëpp waaye day bàyyi xel ñëpp soxna Aysa ba tey nee na benn bis mu aye mu nekk yonent salaam ci néeg bi yonent bàyyi ba guddi gi sori mu jóg ndànk mel ni daal ku bañ yëg daal di jël ay dàllam génn soxna Aysa jàpp ne yonent bi salaam daa am fu mu jëm nee na mu daal di jug topp muy dox ba dugg ci bàq yoon la war dugg ci armée la nee na ma dëgg mu tàll loxo yi di ñaan di ñaan ba mu dëppee nag nee na ma gaaw jiitu daal di ñëw tëdd di xëxët bi yonent salaam ak seen nag waaw xëxët yi nag mu ne ko du dara mu ne ko ah, am na la xew da ma wax lu mu doon ba yàlla wax ko mu daa koy nett ne ko damaa gis nga jóg ma jàpp ne da nga jëm feneen nit nag lu mu nëbb yàlla dana ko xam mu ne ko da jàpp ne yàlla ko tam dana jeng ne ko jibril moo ñëw ne ma sa borom nee na nga dem ci armeel ya jéggulul way faatu te bëgg ma woon di la yee bëgg ma it nga yëg ne génn naa wàcc la fi ngay wéet moo tax ma jóg ndànk bañ nga bañ yow mbokk yi xool leen jikko ju kawe jooju tëdd ci néeg ak sa soxna di jóg ngir aajo waaye bëggoo sax di yàq ay nelawam da ngay jóg ndànk ubbi buntu ndànk delloo ko ndànk dem ndànk loolu moo doon jikkoom sallallahu alayhi wa sallam di royukaay bu mag a mag kon loolu it ñu mat ko jàng ci moom waaye soxna Aysa nee na yonent bi ci biir këram mësta dóor nit du soxna du ab surga du gone mësta dóor kenn xanaa jihaat bu ñu jihaat yoonu yàlla daal nee na it luñ ko mën a wax ak luñ ko mën a def buñ xottiwul war ma yàlla yonent ay sàmm day mun waaye du wax bu jàmm aw ñamit musu koo saboote nee na saa buñ ko indilee ñam su bëggee xéewlu su soxlawut ne baax na waaye du ko sikkal du ne weex na du ne wow na du ne nangam bu bëggee dal jariñoo su bëggut ne baax na waaye nee na du ko sikkal mukk ci àdduna noonu la meloon ci biir këram waaye fonk loolu nit bañ ko dur nit euh, lool sax nag saa bu la gisee ngay dóor nit rek mu tàng saa bu la gisee ngay dóor nit day tàng jër ma Mas'ud nee na Abu ma Mas'ud nee na benn bis dama am sama sungóor di ko dóor di ko dóor ba yàgg ma dégg kuy wax sama ginnaaw ne ma yaa aba Mas'ud ni nga ëpp doole gone gi ni la yàlla ëppi doole ko ëpp nee na ma geesu mu yonentu yàlla Muhammad alayhi salaam ma ne ko goreel naa ko ngir yàlla goreel naa ko nga xam ne romb ñuy dóor gone rek mosu koo bëgg sallallahu alayhi wa waaye fonk it njabootam ba di diisoog ñoom waa këram ay soxnaam lañ yoritub yàlla la waaye ci mbiri àdduna day diisoog soxnaam gis ngeen ba nu bu bëgg a wàccee day ñëw diisoog soxna ja mu xelal ko ca la xamee ab yonent yi ca solo Hudaybiya bi mu digalee saxaaba yi ñu yeewi ko ñëpp gàntu am lu naqari soxna Umu Salama moo ko xelal ne ko génnal rek mootu rey sama xarit ñëpp dañ topp dañ def li nga def mu daal di def la mu wax mu daal di yéwén waaye mën a muñ ni soxna yi daan def di ko daf ni yi ne ci kër yi moo nekkoon ci kër yonent bi léeg-léeg ñu mere ko léeg-léeg ñu ko Omar nee na bi ñu nekkee Màkk jigéenu Màkk nee na Màkk seeni góor ñoo yilif seeni jigéen Madina nag safaan bi la jigéeni Madina ñoo yilif góor yi góor góor yi nee na bi ñu gàddaay jóge Màkk dem Madina suñu jigéen tàmbali di roy waa waa Madina ku wax rek ñu teg ci baat benn bisu Omar nee na ma wax mu àggal rek soxna si teg baat ma tàng ci kawam mu ne ma dangay ngay bañ ma tontu te yonentu yàlla bee nekk fee su waxee waa këram di ko tontu Omar tiit daal di ñëw ne Hafsa waaw yonentu islam daan na ko day wax ñu koy tontu léeg-léeg sax ñu tongu ko kenn du ci loolu dem laaj Hafsa ne ko waaw yéen da ngeen mere yonent bi léeg-léeg kenn du ko nuyu mu ne ko waaw waaw léeg-léeg kenn mere ko de. soo bëggoon doo ko nuyu waaye kenn du ko xam kenn du yëg ndax jikko ju mat sallallahu wa sallam waaye ko yow boo ma ma xam ko boo dikkilut laa ko xam yow soo dikkilee da naan wa rabbi Ibrahim waaye soo bëggee da nga naan wa rabbi Muhammad waaye soo meree rek doo mën a xàmmee naa li ngay def noonu la doon dunde ak waa këram sallallahu alayhi wa sallam baax lool yiwén lool yaatu lool du mer lu dul bu defee daa naq lu naqar yàlla noonu la meloon ak i soxnaam ubbi ko ci kanam luñ ko mën a def mu di ko dégg lu ko waay wax mu déggu la waaye noonu la meloon ak i doomam mel koog surga yi nekk ci biir këram soxna ay nee na mas naa seen Fatima mu ñëw da ko gàttandu teg ko ci tenkam mu toog mu déey ko ay wax ay sa jooy mu déey ko ay sa ree ginnaaw bu yëpp salaam demee ci la soxna ay sa laaj soxna Fatima looloon lu mu la déyoon ba nga jooy ree mu wax ko ne ko sama di jege na ma jooy mu ne ko waaye sama njaboot yaa ma njëkk a fekk si nee na ma ree ne ko sekkare woon nag du ko woon wax mukk fonk doom yi ba xam ne fekk na imaam ali mu amee xasan daa juddu ali tudde ko xaran yonente ñëw ne ana sama doom ji nu ngeen ko tudde ñu ne ko xarbu mu daan neex innahu xasan tudd xarbu de xasan la tudd nee ci déwén soxna si amaat doom mu dikkat nee naa sama doom ñu ko tudde Ali ne ko Harbuwaat mu ne ko déedéet Xuseyn ku ñetteel ka mu waxaat ko loolu mu ne ko Muhassin ne ko ñetti doom yi yi ma leen tuddee ñett ñi euh, Shabar ak Sumayr ak Mushabbir laa leen tuddee nga xam ne fonk leen ba ay tur moo leen ko doon tànnal daan na julli boot kenn ci ay sëtam umaama def na ko ba tàyyi boot ko bu sëggee mu war ci kawam bu siggee teg ko ci suuf mas na julli yàgg lool sujjóot bi ba saxaba yi jaaxle bi mu sëlma la wax ko mu ne sama doom moo ma waroon te bëgguma mu wàcc te doyul nekk na ci kaw minbar di xutba di xutba xasana ko xosi nekk ay xale ñëw di dox di ko wut mu wàcc fab leen teg ci peggam ci kaw minbar bi kon dëxul bopp daan ne suñu borom daal la waxoon ne innama amwaalukum wa awlaadukum fitna ma leen séenee ñuy dox amutuma sago daa wàcc jël leen kon ci biir këram ay njabootam ci fekk ko ci jàkk ji tàngut néewut nañ leen yóbbu waaye daa jël wuuf leen àggale doon def ci julli nga xam ne moo gën a màgg ci yàlla di boot gone di julli wale loolu daan na ko def bi doom Ibrahima faatoo dañ koo gis ndeysaan muy tuur ay xéewal bët yi sotti ci la doon waxe naan al aynu tadma wal qalbu yaxzan waaye wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li firaqika ya ibrahim li firaqika la mahzunun biñ biñ Ibrahima noppaloo dane bu ko kenn denc te gisuma ko daa ñëw ndeysaan ba tiim ko dara wax na yóbbu leen ko kon noonu la fonki woon njaboot gi di leen wutal ay tur yu baax di leen tànnal waaye fonk it ay surgaam ci biir kër gi surga yi nekkoon ci kër gi ñi ay moomeel la ñi mu goreel leen waaye daf leen a fonkoon ba jàppee leen boppam anas nee na bokk na ci ñooñu ne woon ci kër yonent bi nee na liggéeyal naa yonent sa fukki at mësuma wax uf maanaam mësta yëkkati kàddu bu ñagas jëmee ko ci man nee na mësuma def dara bam ni ma lu tax nga def li mësuma ñàkk def dara bam ni ma lu tax defoo nanga mbokk yi xooleen kooku mat gone gu ndaw ci kër doo jànni doo wax lu ñaaw doo gëdd doo toroxal noonu la meloon nee na liggéeyal naa ko fukki at mosuma dóor mosuma ŋàññ mëst sax ñàngal kanamam sama sama xar saa yooyu bu ko jubee day muuñ saa yooyu ko jubee day muuñ sallallahu alayhi wa àgg na ci daan liggéeyal sax ay surgaam yooyu benn bis soxna ummu ayman baraka ab mawlaam la daay ñëw fekk yonent ay salaam muy naan mu ne ko yonent bi mayoo ma naan soxna ay sa ko yow liggéey wax yonent yàlla bi taxaw fii naa ko mayoo ma naan xam nga lu ummu ayman wax ne ko li ma ko xitmaal moo gën a bari li ma koy ñaan mu daal di wax na dëgg de daal dem tàq ndox jox sallallahu alayhi wa sallam ummu sax moomee la ci sa biir kër ne la may ndox nga dem tàq ndox loolu bokk na ci lii firndeel ak matam daan na waxit ne seen njaboot gii di seeni surga ci kër gi seeni mbokk leen yàlla leen def ngeen yilif leen ku ci am mbokk nag lu lekk na ko ci jox mu lekk lu muy sol na ko ca solal te bu leen leen teg luñ mënut te lu ngeen leen teg na ngeen leen ci jàpp moom loolu ndigle njaboot gi ñu am ci kër gi muy say surga nee na looy lekk na ko ci jox bu lekk lu baax di ko jox safaan kon jël la ne soxna yeeg doom yi surga yi ci kër gi la wax ne bul lekk aw ñam wu nekkul bul sol luñ solut boo leen di liggéeyloo it sañ nga ko waaye bu leen teg luñ te loo leen mën a liggéeyloo nag leen ci jàppal bu leen teg rek ñuy liggéey nga toog di seetaan waaye dama jàppal la mbokk yi noonu nii la yoon bi ay salaam meloon ci biir këram ak ay bokkam ay doomam ay soxnaam ak ñu ko daan seet ba ci gone yi ñu doon daje léeg-léeg bu ma sànn génn gone bu mu romb nuyu leen ay xale yu ndaw lay romb di leen nuyu ñu di ko kar di ko wax seeni soxla mu toog di leen déglu nit ku ne ñëw na këram seet si ko mu neen agsi kon doontul kuy tëju ndax yonentub yàlla la royuwaay la ci loolu dañ koo soxla ku ñëw mu dalal la jigéen gu ñëw jaar ci soxna yi mu àgg si ci moom góor gu ñëw jaar ci góor ñi léeg-léeg kër gi yëngu jigéen ñi kombaloo ko waaye day dal ànd ak ànd ak sago wax naa sànq ne mas naa dem ci benn barab lu mat weer fekk boobu tànkam day metti waaye mu giñoon ne daal waa kër gi dañ la gimbal su Omar fekk ko ne ko ndax dang saxaaba yi fekk dañoo siiwal ne yonent bi wàcc na waa këram yi Omar fekk ko fa ndeysaan mu ne ko da ngaa si sama kër mu ne ko déedéet bàyyiwuma leen waaye damaa wax weeru yàlla woo xam ne moom naa leen sori booba complot yi daa bari léeg-léeg ñu wax ay wax ci biir daf ay def kii waxante ay wax mu dégg ko mu wax kii dara ne ko bu ko nettali mu nettali ko waaye loolu lépp mbokk yi liñ ci jàng ñun mooy kon ndekete lépp luy xew ci kër yi mi ngi doon xew ci kër sangu bindeef yi waaye ak matam ak maandoom taxoon na muur lépp kon royuwaay la ci jaboot ju ci biir këram na nga xam ne la sa njaboot def defoon nañ ko ku la gën muñal pour muñal waaye jaboot war naa xam ne yonentu yàlla muhammad alayhi salaam di yonent yàlla jéggal ko ba bakkaram yépp mu wàcce boppam di ànd ak njabootam di bokk ak ñoom di lekk di leen jàppale bi ñu liggéey di rat ay gàttam di fóot mbubbam léeg-léeg di jaxasoo waa këram ni kenn nit di jaxasoo kenn ci waa këram war ngaa xam ne kon royuwaay la ci loolu ko war bu ko ca roy jikko yu mat yooyu mbokk yi bokk na ci li taxoon yàlla tànn ko waaye nag ak dundam mi nekk loo xam ne li tax ñu sañ cee waxtaane nii mooy day royuwaay ñu sañ a waxtaane léppam ngir ñi mën cee roy rafet njort lool lépp lu leer wax leer nañ moo taxit ñu war cee jàng loolu boobu soxna ay Aysa jàppee na yu sa sam daa génn jëm feneen mu topp ko léeg-léeg nit soxna daf lu mel noonu dina laaj doon na ko leeral ñàkk leeral day yokk am lënd waaye yonent bi alayhi salaam daa wax soxna si la xew yi la ñëw ci man déey ma ne ma demal sa boroom nee na nga dem ci armée ne jéggalu leen ma bañ nga yeewu wax ko nam tamit lépp si dellusiwaat soxnaay sa xam ne kon leer na daan na ko waaw kay waaw man su may ñaanal diw lu may wax ca la ko waxee salaamun aleykum diyaara qawm muminin inna insha allahu bikum laaxiqun yarhamullah a minkum wal mustaxirina minna ne ko booy siyaare ay armeel wala nga ñaanal ay néew na wax lii sabab si bi tàmbale kon matut jikkoom ak it lu mat a leeral mu di ko leeral loolu mbokk yi yëpp islam royukaay la ci woon kon yàlla na yàlla dolli waa may ngërëm waa may leer ci kawam ci guddi gu tedd gi di ñaan yàlla dolli mbaax ngërëm it surgam bi ne woon fii doon dund sunnaam ba tey jii lépp xew ci fu ñu màggale yit mu màggale nu ko raw noona ba tey barab yi ñu màggale yëpp bokk na yi gën a ràññiku barab bii mu nekk yi xadimu rasulillah di ko xitmaal ci sunnaam ba mu guddi gi dikkee it di si waxtaane ku dul moom ni ko suñu taa waxe léegi yàlla na yàlla doon lañ ngërëm sëriñ boobu sàmm njabootam sàmm xalifaam bi fi nekk Cheikh bu taxaa waaye sàmm jullit ñëpp ñu teewe xew yi déwén yu bari te rafetoo teewin lislaam di yokk yonent ay islaam di gën di am ndam mbaax di gën di tasaaroo ba ba ñuy dekki ëllëg ci ron yonent ay islaam ñu pang ñu ci ab kuréelam min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa saalihin wa xasuna ulaika rafiqa maa ngi jéggalu di baal wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu baarakallahu ñu doon teewlu te doon topp waxtaan wi defe naa li waxoon ci njëlbéen gi jot nañ koo gis waxtaan wi gàtt na waaye amun na njariñ yoo xam ne ku doon waxtaan ba suba it munoo indi lu ëpp njariñ loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu lim doon wax nun ñépp noo ko dégg jërul gàttal jërul guddal jërul leeral ndax gàtt na leer na te gàmm nag li muy jëriñ dëgg dëgg dëgg nag mooy lii gàmm li muy jëriñ dëgg mooy xam la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne lii mu wax ci benn waaye bu doon dund ci këram di ca dundee dundin wu rafet wii dundin wu mat wii képp kuñ ko nettali te nga gëm ko danga bëgg waa jooju da ko bëgg ci sa xol te boo ko bëggee ci sa xol danga ko roy te boo ko royee daal di jariñu àdduna ak alaaxira képp koo xam ne boroom kër nga walla ñu ilif la soo digloo waxtaan wii soo delloo war naa soppi sa jikko ci saw doxalin ci sa biir kër kenn ku ne ci nun war ngaa jàpp ne tey jii bu subaa war ngaa soppi saw doxin ci sa biir kër ndax jàpp ne am na kenn ci nun koo xam ne nii mu nettilee noonu ngay doxalee ci sa kër jàpp ko kenn ci nun koo xam ne noonu ngay doxalee ci sa kër li dalee suba rek ku fi jógee rek bu kàmm gi jeexitalee ci yow nam war a jeexitale ci yow soo demee da nga soppi sa doxalin ak sa waa kër ndax doonu bu ko waa tàmbulee huwa naasu wal miisaanu loolu lu am solo la huwa naasu wal miisaanu mooy nit ku mat naas naas nit ku mat yonent bi ak matam fi nga koy xamee mooy dañuy wax ne doomu aadama du mat ñun bu ñu tagg doomu aadama sax dañaan bu juumee dañaan ah doomu aadama de moom du mat yàlla ko bindee noonu moom nag muy doomu aadama ba noppi mat muy doomu aadama ba noppi di doomu aadama yëpp waaye mat sëkk nag ba noppi moo tax mu nekk misaan ndax boo bu manqué woon la manqué du ko mën a jàngale misaan boobu mu nekk nekk nattukaay kenn ku ne di ca xool sa bopp ba xam noo toll bu fekkonte ne léegi matul kon day am lu manqué loo xam ne doo ko mën a roy ci moom moo tax mu nekk ku mat di nit ku mat ba noppi di royukaay ci di ñëpp yàlla na yàlla yàlla kon mbokk yi waxtaan waa gi noonu sunu fi jógee li ñu fi jëlee bu noppee ci waxtaan wii jàngkat yi daal di commencé jës bu daal di commencé muwaay bu daal di commencé muqaddimaat kon sunuy xel leer na ci lii mu fi wax sunuy xel leer na ba kenn ku ne mën a jëfandikoo li mu wax waaye bu ñu ci jógee nag jëm ci lii liy dundal sunuy xol guddi gi tey jii moom ñaari yooyu rek lañ ciy jëlee luy dundal xol ak luy dundal xel liy dundal xel mooy lii mu doon wax mooy dundal xel waaye liy dundal xol mooy lii ñu bëgg a jëm mooy xasaay yi ñu bëgg a jàng kon yàlla nu yàlla fayal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla nu yàlla fayal seexul xadim mi nga xam ne lii lépp bu mooma ndax guddi gii fonk ko fonkoon ca lañ koy royee ba di ko jéem a defee nii ñu koy defee fonk gum ko fonkoon rek moo tax ñu di ko jéem def nii ñu koy defee ne am na ñeneen ñu koy def feneen waaye jàpp mu ne bu fekkente ne sellal rek la defin wu sell defin wu dëppook sunna yaakaaruma ne am na beneen barab buñ koy defee lu gën a sunna woo ni koy defee fii yàlla ko yàlla nangu nangul nu ko te fay nu ko te fayal nu ko moom Seexul Xadiim radiyallaahu taala anhu te képp koo xam ne fekke nga jataay bii yàlla may la ci pay gu toll ni loolee mu wax ne yaquuduna lil jannati taazimuhu bi sunnati yàlla nañ ko màggal ci sunna màggal googu ci sunna yàlla nu jural lam ca wax mooy yaquuduna lil jannati dana nu ommat ba tabal ñu àjjana te ku tabal àjjana rek li nga bëggoon lépp da nga ko am kon waxtaan waa ngi noonu ñun ñëpp ñoo ko déggandoo nu bàyyi kon jàngkat yi dundal suñuy xol buñ fi jógee bu subaa kenn ku ne ci nun na fas yéene soppiku ci biir këram su fekkonte ne gàmm gu jot kenn ku ne da ngay fas yéene benn tomb bi ñu waxtaanee boo demee balaa déwén da nga ca roy lu bari bu déwénaatee ñu amaat beneen tomb royee ci lu bari bu déwénaatee ñu am beneen tomb royee ci lu bari ku ko def soo àggut it da raw ñu bari soo àggut da raw ñu bari te raw rek loolu lañ la digal képp laqad kaana lakum fi rasul